أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ينبقي ينعو سنت سنو بروم جل سيون تيالي صلى الله عليه وسلم مانجلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنو بروم دينينا على إن الظالمين في عذاب مقيم توان كدي دانيو سخ سيموغل مسخ daañu leen fa yóbbu yonent yàlla bi nee na jullit bu nekk dafa xaram si mbokk jullitam mu tuur deretam naka noonu mu jël alalam waaye muy ne si deram di ngaw ngaw yi tey nag bi ñu xëyee dañ ñoo bette benn xibaar xibaar yoo xamante ni ay tuuma la ak ay waxi kesew kesew wax yu dul dëgg wax yoo xamante ni mën naa ni lëmbee na dëkk bi loolu nag fam jóge mooy journal bobu ñu wax les eco xamé nañ ko nak mom ci tasaara ay tuuma ak ay xibaar yo xamanteni dara du si dëgg yi tuuma nak ci journal bi dafa tumal sama wéjur bi ñuy tuddee Abou Ibrahim mam Ngor ndjay bi fa leen ñak rob ñi dañ ko japp mom mam Ngor sama wéjur woowu mom mi ngi ci biir kasso gi lolay la du dëgg ay tuuma la ay roubé la ak duufal sa journal ñu ni lii nag tooñ la borom photo bii ñu tasaare nii ñu fësal fii si journal bi moom moo ñu jiite fajar si jàkkaam ja kon seen yi ñuy def nekkul première fois ñu di ko def ay def defaat la yu ñuy def loolu nag bu wanee dara day wane ni ñoom ñoom ñoo tasaare photo bi tey ko juumuñu benn yooyu juumuñu benn yoon kooku nag ki fa jaar mooy ki wax ak yéen mooy Mouhamed doomu Maam Ngoor Njaay ñu ko bind si 14 muharram 1444 tombeeg 10 août 2002 ñu ngi ziar ñëpp